incha allah Assane jàpp nañu fi ak suba dina jàkkaarloo ak askan wi waxtaan ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko itamit nee na daal euh, dara du yàqu ci jëflante gi doon am ci France ak euh, Sénégal wax na ko ci bare bari ci gañaa gañaa gu mu gëm ni daal war naa mën a am mais Jean nag ñu fàttali ne ab opposant la ca France waaw. am na solo euh, président wala boog Ousmane Sonko première ministre bu fekkee dafa dalal ab opposant boo xamante ni France la nekk rek opposé wu. kooku moom yaakaar naa njariñ lim ñu mën a indil bëriwut yaakaar naa dafa war a dalal premier ministre ba wala ministre ya ñu mën a waxtaan nan la ñuy def ba 50 50 yooyu muy wax mën a am mais mënoo dalal ak opposant naan dara du sa yàqu te opposant ba day xeex gouvernement booba nga dalal ko naan dara du sa yàqu. cent mi ngi nii cent mi ngi nii cent mi <laughs> moom diingat léegi la fa nekkee France. lu fa nekkee diingat ak lu ñu fa def mu ni baaxut kooku boo ko dalalee fii naan dama bëgg 50 50 ba am mënta ne. noonu waxuma la dafa ne dama ne Ousmane Sonko. Hmm. ci jëflanteem ak France dama laa teel a femm. bala nga ne moo nekkoon France dégage dama ne moom cinquante cinquante. Hmm. la waxoon ni loolu yi la gëm ci jëflante Sénégal ak France. waaw te dañoo diggante bi dara du si yàqu. ba pare yootu opposant ba indi fii opposant bi li mu fi wut. yi la war a ñëw. opposant bi dafa war na ñëw si Amadou Ba. ni ko nan ngay def ba wër ndomb ñoom président Ousmane Sonko ni ko xelal ma may nan laa def ba wër si ndomb. bu ko defee Sarkozy ak Ousmane Sonko ñoom ñooy war a toog premier ministre yi toog xool nan la ñuy def Sarkozy mooy kat premier ministre kii ki jiite France Sarkozy jiite France France ko jiite France Emmanuel Macron waaw Macron <laughs> Macron sarkozy jité won na france jité won ko ben mandat la def ah koko wa man koko la xam nak man koko rek la nan deg macron moy borom jabar ki jabar ji mag hmm nan ah, ki legi dal ñom legi man na la laaj ben laaj bala nga jall ngay dan nga paré na ci xam ni ah, na do dan nga paré na kay wa legi yow da nga ni ñom lutax ñuy demuñu ci ministre France premier ministre France wala dem France lañu wara def ci xaar rek xaar xaar da jëluñ ci yeen ci gouvernement ba pour développer nga wax hmm. dama gis lu tollok juroom fukki at ñun suñu dirigeant yi di lëkkaloog seeni dirigeant te jarañu maanaam juraluñu dara. Hmm. jural nañu dara kay. luñu jural. lu luñu jural li ñu fi ñu egg si fi fii fan. fi ñu egg si fépp rek France si nekk. yow nam nga France continuer waat la mu nekk ak ñun. ah déet moom France man xam mo nu mu nekk ak ñun. Hmm, xam nga ñun ñun opposant yi yaa ni nii yaa ñaata passeport nga am ba mu jeex so bëggon dem seen rew mu met lool dama ne waye sama yo yeb bokul ci esclave ñom wax nañ deug dañoo defar seen rew ba normal wax nañ deug kuy dugg seenum réew kayit yu leer nga fay dugg gambi ñun waruñu defar ñun gambi gi bo fay dugg ay kayit yu leer la fay ñun waruñu defar mais loolu ñun suñu ñank fayda la mais est-ce que li nak commence ñi en commence am fayda bi mu ñëwé japp ni hmm. duñu jël roppalan dem di yappar yappar ci ab président dañu wara gëm seen bop ni li ñuy développer dañ ko wara gëm seen bop mu ntona wess ñu ni France Sénégal légui képp ku fi duggati da nga am carte séjour wala ku fi duggati da nga am carte nangam mais ñom dañu wara dem France waxtaan ak ñom ndax France mo yor Sénégal fi mu nekk nii dundin wu baax wépp ak njaay mu baax meeg li fi nekk lépp Auchan yépp lu mu mën a doon France ko moom. kon Sénégal mënut a dem sans France. kon kay ko moom France ko moom moo tax ma ne xoj googu ñu. moo tax ma ne mënuñoo dem sans France ci biir 50 ans wala ñu nekk. est dama ne loolu nii. est nag loolu est-ce lu koy dindi dem waxtaan ak ñoom ni que nan la def ba mu doon 50 50 bu fekkee doonu ko

lépp lu muy def tout ce qu'il fait dans sa vie fële ca France mooy ŋàññi gouvernement ba opposé moom la Sonko dalal Sonko euh, euh, boo waxee dañuy naan dañoo complex dañoo am complexe ma ki dafa amoon complex si Macron man gisewu ma ko noonu dafa am loo xamante ne moo jiitu suñu juddu mooy euh, colonisation yàlla def boole ñu euh, France français yi ñoo ñu coloniser on est un pays francophone donc euh, France dafa bokk si ñun ñun ñu bokk si ñoom ndax dafa am lu ñuy soxla si ñoom ñoom it ñu am lu ñuy soxla si ñun waaye sonk bu fekkee nii dañoo bëgg a doxal mbir yi neex wala xawatani as tuuti je pense waa que opposant la ñu war a mën a dalal. ah xaw ma en France ndax am na doole walla amul doole je sais pas mais man gisuma ci lu cohérent euh, gisuma ko wax dëgg fa yàlla maanaam opposant bi mu dalal gisuma lan moo ci cohérent euh, maanaam bon j'ai pas compris dafa dafa lëndam sama xel en fait dafa jaxasoo sama xel opposant France bi nga xamantene momit moom it gasta gasta lay dund sa su nek qu'est-ce qu'il fait chez nous qu'est-ce qu'il peut nous apporter voilà loolu la bëgg wax lan la lan la mëna a apporter suñu gouvernement en tant qu'opposant en France je sais pas peut-être après buñu dégg dégloo indi ñom ñu wax ñu lu indi ak lu ñu indil peut-être on verra mais pour l'instant man mom wax dëgg fa yàlla mbir yi dafa xawa a flou ci sama xel boobu duma ci mëna a lu bëri mais gëm ah, na ni duma ah yalla baxna yalla baxna Mhm. ba tey ci seen scandale di jour toujours ci plateau solution boobu kii di euh, Sidaat moom nag Assane Gueye da ko daal di euh, dàq définitivement temporairement xamaguñu.